Cheikh Ahmadou Bamba ku mu ak ku mu neexut moo la moom jamono. ku mu neex ak mu neexut ci wàllu meuble ak mobilier ba ñu tàmbalee liggéey bi boobaak léegi ci atum 2011 askan wi wóolu leen tapis rouge Sénégal ma ngay lawal ay banqaasam lu jekk lu baax mu ne ci dëkk bu sell boobu di Touba ba léegi showroom bi gën mag mu ne ci dëkk bu sell boobee di Touba lañu koy ubbi. ubbi mu nekk nag showroom bu gën a mag ci Touba tapis rouge daal di koy ubbi ne nag loole seen mbir la dinañ ci dugal seen loxo ba tax na ñi ngi ko doon amal ci teewaayu Serigne Amsatou Mbacke bu ñëw visiter le koy tapis rouge yu bees yi nekk ci dëkk bu sell bi di Touba waaye nag def ci ñaan ci teewaayu Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadir mi yor kàddu yoonu murit liggéey boobee ñuy amal ci dëkk bu sell bi di Touba tax na ki jiite maire bi ne loolee kenn du ko ko nettali moo koy dem fekkeel ko boppam Abdoulaat Ka ñëw rafetlu liggéey bi nga xam ne waa tapis ñu ngi koy amal ci niile la ñu dalloo seen bërëb bu bees bile nga xam ne méngoo na lool ak dëkk bu sell bi rawatina ak war warmay booy dugg nataalu ku tedd ki moo lay dalal waaye nag bu ngeen egsee ba ci sunu place bi nekkee ci biir Touba li ngeen doon wër ci ay jumtukaay daan ko gis ba bitim réew moom la tapis rouge dem indil leen ko ngir gën leen a jege andil leen ay jumtukaay yu am solo lu ci mel ni ay chambre à coucher ay salon luy XIV ay taabul bépp xeetu table bi ngeen soxla tapis rouge rek ngeen koy fekk bu dee nag ay jumtukaay ci wàllum décoration réalisation tapis rouge ñoo ci man moo xam yow mi bëgg décorer sa kër wala li ci aju ay salon en cuir salon semi cuir waaye nag xoolal yii lee xeetu matelas haute densité ay meubles yu amul fenn yi gën a méngoo jamono bu dee nag lu jëm ci wàllu accessoire ci wàllum décoration tapis rouge ñoo ci man tapis rouge yemul foofu dafay yëngu ci wàllum électronique tey nag li ci neex moo di jumtukaay bu ñu leen jaay rek boobu qualité la tapis rouge xoolal sunu table yi ñu am nuróole wuñu ko ak kenn am nañu ay table ay yu baax drap de lit am nañu ay rideau wàllum électronique tamit dem ciy yëngu am na nañu ay frigo am nañu ay pot de fleur fu la aju ci wàllu meuble tapis rouge ñoo ci man Sénégal ndax nag jumtukaay yi fa mu gën a baaxee dañuy dem ba biti réew tànnal leen fa jumtukaay yu gën a baax indi leen ko ci réewum Sénégal kon nag yéen waa Touba jaaxle jeex na li ngeen doon wëri tapis rouge andil na leen ko ak ay njëg yu méngoo ak jamono bu am na ak woyefal tapis rouge Sénégal ñoom ñoo man ci wàllu meuble ak mobilier dal leen jàmm ci showroom tapis rouge de dafa yaata manu gan moonu doy ci ji jamono moom de daa yaata manu gan moonu doy ci ji jamono Baay Saal moom de dafa yaata manu gan moonu doy ci ji jamono moom de daa yaata manu gan moonu doy ci ji jamono Baay Saal moom de dafa yaata manu gan moonu doy ci ji jamono moom de daa yaata manu gan moonu doy ci ji jamono Baay Saal